waaye yokkute soble bi moom ni ñu ko gisee mooy comme ni ko ñëpp yi gisee rek euh, benn bi ci njëkk mooy Sénégal boo xoolee ci at yi ñu weesu am na ci yenn mois yoo xam xamante ni soble dafay yomb lool yegg ci cent franc ren rek la fi àggul ci yenn prix yooyu boo xoolee daaw wala daaw jéeg am na ci ay mois de mars avril mai soble bi cent franc la doon jar ak soixante quinze franc yenn yi sax ngeen gis image yi muy loo xamante ni dañ ko doon tuur ci jamono yooyu nag état bu Sénégal dafa waxoon nii dañ ciy jël ay mesures mesures yi ñu waxoon mooy nañ waxtaan ak secteur privé bi ñoom lan lañ xalaat pour def ko pour jéem a sauver yenn produit yi. ba xam ne seen tamit bu ñu yeggatee ci mois de juillet wala août ñu mën a génn produit boobu ba xam seen li ñuy jëggaane du bëri way laax du seera ah ci jamono yooyu nag ñu convoqué ci benn réunion ak euh, ministère du commerce man war naa ndaje boobu ak euh, ministre Assome Diatta waxtaan ci ak moom tegal ko ay proposition ah moom it mu rafetlu ko loolu ba président Macky Sall wax ni dana jéem a yëkkati au moins lenn loo xam seen dana mën a jàppale yenn secteur privé yi ci ay ay ay jàppale yoo xam seen du nekk ak may mais boo leen ak yenn banque yi ñu financé leen en même temps lettre de garantie yi ñuy soxla ñu mën koo def boo ko defee ñu mën a def ay chambre froide maanaam ay magasin conservation ba soble boobu duutu yàqu loolu nag dana permettre ba bu ñu yeggee ci jamono yi mois de août nga xam seen lu bëri waa la ñuy sentir ni soble bi seer na lool ñu mën a génne produit boobu ñu dencoon pour consommateur yi mën ci man ci jariñu mais nag yàlla def na loolu ba tey amagul ah, soble bi nag li mu toll nii nga xam seen tey ñu ngi naan kilo 1500 boo xoolee daaw heure bi daaw amoon na heure bi daaw bi ñuy def màggalu première màggal gi Touba dem na ba saako soble ñuy wax cinq 35000 cinquante mille mu nekkoon tamit lu ñu naqari parce que bu ñu dee ay commerçant tamit ay consommateur lañ avant ñu nekk commerçant et puis Sénégal lañ dëkk dëkkuñu beneen réew bu dul Sénégal lu ñu mën a am Sénégal lañ koy def lu ñuy mën a liggéey Sénégal lañ koy liggéeyee nekkul comme si que dañuy jël soble bi di ko denc wala di ko naaj wala di yokk prix bi ci sunu coobare bopp non non parce que léeg nga dégg ci yenn ti ñi ñi yelloo wax wala boog ñi xam seen bëgg nañu jàpp nañ ñoom ñoo war a wax ñu ni commerçant yi ñoom denc produit bi bu seeree ñu génne ko di ko jaay consommateur yi mais loolu amul ñun du ñu denc non loolu amul xam nga am am gi mooy kenn du leen teg naa ci sa bët yaakaar naa rek la ñuy wax defe naa yaakaar naa Sénégal dañoo war a dépassé defe naa ak yaakaar naa dañ ko war a teg teg ko suñ te tafal jàkk comme suñu Abdoulaye Mbacke waxoon de folli dégg naa tafal jàkk maanaam gis boo gisee ni man maa fekkee loolu bakkee la laaj mm. mais tey jii nii bu nee soble amut mm. tey ñiy wax ci ci Sénégal bu dee gouvernement bi xanaa au moins lu ñu lu ñu lu ñu gàkkanu gàkkanu war nañoo man a xam ne bu soble amee Sénégal war nañ ko gis ñu ni kon nañ ko génne pour jaay ko mais gisuñu soble ñun dañuy jëggaane ci réewum jàmbur la ñuy dem di fa wute ji li ngay wuti nag ci réewum jàmbur moom gis na ni moom it bu eggee ci yenn jamono yi soble bi day manqué ba li ngay sentir moom mu sentir ko mu ne kat damay bloqué kon li ma am li ma leen doon jaay dut ma leen mën a jaay loolu commencé par Maroc gi ñu dégg ñu ne tey jii may nañu au moins ñu mën a dugal ñu mën a dugal au moins mhm. dix mille tonnes delloo ñu dix mille tonnes Sénégal 15 jours lañ koy lekk matul un mois sax loolu bariwul xam loolu mënut dimbali Sénégal donte moom bu ñëwee bëgg nañ mais mënaluñ lu bëri tey loolu li ñuy dimbali nag ba xam seen tey ñu avancé ba ëllëg du ñu ñaani Maroc wala ñu ñaani feneen mooy ñu am ay magasin conservation mais lu dul loolu mënuñu am dara.